ginnaaw mu leen nuyoo ba pare maa ngi nuyu Sénégal yëpp aussi ak kilifa diine kilifa aada yëpp ba pare question bi ma laaj nag yaakaar naa yaa gën a xam parce que démb ba maa ngi sur yi lépp lu war am yaakaar naa liggéey boobu def na ko pour leeral Sénégal yi mais maa ngi si dégg tamit ay yeneen rumeur yoo xam ne bëgg naa ko leeral léegi léegi nii rek que am na complice administration pénitentiaire Euh, ñoo koy jàppale ndaxte ni maître yu ñu def ba évadé lii laa parce que bu njëkk maa ngi dégg am na ay teesu jinne yu doon sax wax mais cette fois ci waxatuñ ko euh, gëm naa ne kon léegi xel yi mi ngi évolué benn benn waaw mais évasion bi nag man maa jël sama propre moyen def ko te mooy méthode bi nga xam man moom laay xeexee injustice dëgg la nag population Sénégal moom comprendre na gun bu baax a baax a baax. ñi nga xamante si daanaa déggoon ak ñoom yàgg naa leen wax ne leen euh, man fi ma nekk amul sécurité amul sécurité donte ñoom nag contraire lañ jàpp ñoom jàpp naa ne sécurité la mais man man gëm naa ne amul sécurité te gëm naa ne à tout moment muy heure euh, chaque heure nu es jours saa bu ma bëggee génn foofu mën naa ko def. non dañuy garder fii suffisamment parce que ñu ndoolee xool euh, ñu traitement bu gën a baax si prison yi ñu moom lañ am. aussi ñoom teg nañ seen ay moyen yi ñu jàpp ni tamit mooy sécurité waaw mais tamit ñoom ay nit lan la ñuy xalaat man tam nit laa damay xalaat te gëm naa ne gënuñu ma nekk spécialiste te dàq ñu ma xalaat dàq ñu ma calculer waaw bi may nekk foofu noonu maa ngi euh, si chambre bi ma nekkoon chambre mi nekk euh, deux mètres vingt sur trois mètres dix am benn aération quatre-vingt et quelques centimètres ou millimètres je ne sais am ñaari lal si biir maa ngi fa nekk man ak benn ko dotine euh, ressortissant malien la euh, ñu ngi koy topp affaire terroriste waaw mais ñoo ay xale lan ay innocent lan te comme injustice la moom laay xeex mënoon naa faa quitté ànd ak moom génn ak moom mais boobaa dootul nekk injustice bu damay dee xeex sama injustice ba pare tooñaale parce que damay génn ko wut a génn aération euh, dafa am ver dafa am euh, bi ñaari feer la moo kale euh, moo baar aération bi ak benn grillage bu nekk si biti fer bi man moom laa dindi si guddi gi si moment boo xamante si ni maa ngi nekkoon grève de faim toog xalaat ba sonn sama xol boon injustice bi ñu jël teg ko sama kaw te teguñu ko fenn te benn nit moo ko waral loolu nag moom ma touché yóbbu ma foo xam ne si dem naa ba sama euh, euh, sama réserve dafa dem ba jeex parce que depuis des années yàgg naa am possibilité pour ifaade foofu mais man dama ne affaire iffasion laa bëggatut a dugati comme opinion publique bi comme lu bari comprendre ko te man damaa yaakaaroon ne sax ñoom dinañ comprendre mais lu bari comprendre ko mais bi ma demee tam muñ muñ muñ muñ muñ ba sës. xam ne carrément lii mooy seule option boo xam xamante si ni man si am na a jaar xeex sama àq ak yelleef ba jot si. waaw man nag euh, technicien laa quoi si informatique ak électronique ak ay maintenance ak yooyu noonu mais finalement tamit sama xel aussi dafa nàcc si bagage yu bari yàlla dafa ma may ba xamee man lu may xool rek mën naa mën naa ko wala lu lu ma jéem rek dama koy man parce que jànguma français jànguma kii alxuraan laa jàng. mais français yàlla dogal na man maa ko jàngal sama bopp comme yàlla def mën naa liiran toog yooyu noonu euh, moment bi may nekk si bi fii nga xam ne dama sama xol da bon injustice bi am ak traitement yi am ak yooyu noonu léegi chaque jour damay bëgg di bind leetar accident et justice bi fi nekkoon ak le parquet di leen wax seen injustice ñuy def léegi nag euh, leetar yi ma doon bind da doon violent ba euh, directeur bi si mujj da si tiit première fois may dugg kaso boobu j'étais mineur Diourbel la woon Diourbel la woon faat naa gisatu woon 2016 je pense 2016 la Diourbel la woon euh, première évasion bi mu defee moom affaire xale la woon affaire xale yi moo jàpp woon parce que boobu maa ngi woon mineur bu Diourbel